ma ko mbal ko karde mbalo na sidi barama ko wahyu tismo be ko banga toro génn mbooloom si di baara kuma weddi am na rabbe xol waroon naa ngaal ko banga toro génn mbooloom si di baara maa na ngay taas nangu leen ñaan gi ñuy ñaanal ënu baarama yàlla buy yàqu buy yàqule yàlla buy uñi mbóot nañ dee ci sopp bay ñas si di baarama nag baay rag yow ma yu ma suna kañ bara amma majmul bahrayni marhaa kañ fakula kudu saman yéen nañ ba ku sa sat su kole se jamilina yàlla bu ñu ru kaamil si bara amma majmul bahrayni marhaa kañ fakula kudu saman kañ أنقوا عين سمع جب سن غرامة أنقوا يا جب من يجوك دي قلدون بلو روسي قولا نوجه كاي برامة téléphone si biir awra amaa. walul bala ñaaw an kaw yaa ngi ñëw suuxal si di bara ama man ko nande ala kay ma demal xaybu malaaka ya soxla naa leen si di bara ama gënum abula kullu samal bayna xalaal jibril yëngal dina la fa na wàcc sandar muri dal di soufflé te naan xëyu leen gaañi bara amma gënum abula kullu samal bayna xalaal asrafulu sew sandar muri jóg di rappal pare leen dem soxla nañ leen gaañi bara amma gënum abula kullu samal bayna xalaal naa ba génn xëy bu wàcc ruusi dara sabbal si di ba amaa. man yoo doon rëy ba xaaral béyu rabbul aar xundu sawan béyu solaan indi ba amaa. malaaka yaa forcé alkaaw yaa fàttali leen ya te xam malaaka day bëri ñu gaañe ba amaa. man yoo doon rëy ba xaaral béyu rabbul absoluut defar dee ba jeex te xam malaat ak kéemaan si di bara am moo dara di bara bi ñu bambula pour bu soxal lay la soxlaal si di bara barin ma jubee malaat kaya xaatiw suuf sa jalaañoo keroog ba ngay xalaat bu alot si di bara am moo dara di bara bi ñu bambula pour bu soxal lay la soxlaal gën a tax ñu wetti suñ bàyyi si di ba am ma moo dara yi barxaaba jëju ma ko la hubbu saan la nasaraan la malaanam rey bi dem ko sangoo yërëm na sa borom tutu kenn way lool si di ba am ma ngat alku ku la dem mas genn mbooloom si di bara amma a bu mettee dox na futu askan dafay ala jàpp looloy jikko yi gaañ yi weddi si di bara amma wax ci bari yàlla fasal la ci jaam kañaan gu rëy mu jom halakun nooni baraham yàlla jëfam ne naa gaañi bara amma bara amma يحيى يمن الناس بمر أما ميلون مهرج والحرام نجوم ملا تدرس والفجر سلاسل يا قرن بيتال يا ربي بنتنا من تال إنهم رتال رانغون وترنة البيضاء سيدي بر أما ميلون مهرج والحرام نجوم ملا تدرس والفجر سلاسل Lamin Taal ibnu Omar Taal yal na bii bi jox la gërëmal si bi bara amma bara amma kejum amula kullu samal xeyna saraan si bi bara amma ba Papa Lamin woo waa Kawlax ndaw lu neex a xool looloy adaratu jamoon si bi bara amma bara amma kejum amula kullu samal xeyna saraan لا سقيل ففتي ياكل رنجة دهو سيدي بر أما يقول أجبها يجمع ملا كل سمان شكرا سيدي فتوحتي Ahmadi bi ñas maa ya gën ci doom lay ngeen ma ñëwal soo naan si di bara amma Ahmadi bi ñas maa ya gën ci doom lay ngeen ma ñëwal soo naan si di bara ñas jaaxal nga Ibrahima Diouf ka nga donn sañu koy wax Sidi Bara Ama lo adi amadi bi ñas ba tan ci do ila ñu nga ñoo soda Sidi Bara Ama futuhati la amadi bi ñas ba ya tan ci do ila ñu nga ñoo soda Sidi Bara Ama futuhati la amadi bi ñas ba ya tan ci do ila ñu nga ñoo soda Sidi Bara Ama yayi helimanni mulkok malakot katiru laklam di doma sidi bara amma jaga feskat daxota wat falla rek julli ngeen ba dee ku xamul yàlla lab ci waylun yañi bara amma Bila yun gayon sorazil ba nga samkat day jas mu lay gaay jigéen na ca démb mooy tay si di bara amma ci dama di bi ngas baagan ci doom si di bara binde fi yaa nga def kuréel kuréel rin ma wuti sam ñu ngay tertu ay holloom si di bara amma ci dama di bi ngas baagan bi ñu ko ñoon soodaan si di bara yes lay akar balay dellu xaybu ci bi ma la la kañi ma amma ati la badi ni yas ba tan ci bilay nga ñëw sora seni mama mac soobi sax maa gën a xeesaan ak ma se xaas maa nga jëloog leskandër ya kañi mara amma ati la badi ni yas ba tan ci do bilay nga ñëw sora jiw kaw raay ba daw lu neex a xool sa turu jàkka wa ma jox xal si di ba amma ci dama di bi yas ala kan ci doxal bila ñu nga joxal soora si di ba amma sa turu njëkk mooy la tooye bokkut ak baram looloo xalak ko di xam yi we di ba amma ci dama di bi yas ala kan ci doxal bila ñu nga joxal soora si di ba para leen yéen sappal leen ñu julli fardul jami bi ñëw na moo di xara amma hatina madi bi ñas balan bi jur soda seni barama ba nit ñëpp be dem ak kontaan kon ci ñu jimi kii bi ñas balan ci dox bi مميصل الملك ملكوت سيدي مع أما متوحدين مديني أسباغا جدو بلا يتجور سورا سيدي مع أما إنسان كامل بس الملي من برد تخو جمم جامة تجل ملكوت سيدي مع أما متوحدين مديني أسباغا جدو بلا يتجور سورا baya teew mu ngay xutba ma doon dawa naa si di bara amma baalan ci la ñu di warama badru samaan bi ñas leeral nga mul koog mën a di jël nga ñu babul xole yaa si di la ñu ko ñool soo daa si alam atam jiween anak karaama yu for alamul xaybu tax na ma hem sidi bara amma adila wadi bi yas adan ci do bila ñun do ñol sura sidi bara amma hijabu la sambi barham anta babulay نعم رجال نيونا سودا سيدي بار baraya ɓe sanno oppal man bi nde ngele mandi pularere sidi ɓaab hamma dambi wutet darse jaajaakal fuuti soodaan mool bu mag be tammu ngambaal siriba hammaw sa njaboot jinda sangal par mandi andi ngele mandi ahlu ci ndiir ci lañ xama ko siriba hammaw mu la raj rabbi yokk xanmaar ba ñooy miraas si seen baay booba bara mànga seen biir gàññi bara xamma mu la leen naan jóg leen boom ñu dem ca xaadi réew ma ndax ñu laaj ku jóg leen doomi baar xamma gàñña dal da dugg ca biir manding ma dajeeg genn góor mu na leen sama gilim lay wut lay wut lay wut sidi mu la rang panaat gilam guy soox dajee na ñoom moom góor koo bàyyil moom la sidi baab ama rabang panaat gëlëm ak benn bët dajee nañu moom góor gën a ko bàyyil moom la sidi baat xammaan xanmaaran ko naan gëlëm gu genn ba dog dajee nañu moom góor gën a ko bàyyil moom Iliyaasan ko naan yow kilam du rëccoon borom nga laaj góor ga ko bàyyil moom la Sidi Barhama gaañaan ko naan doxal ñu dey gisuñu si gilim gi su googulee gilim riir na Sidi Barhama oo dana metti lool mbaa ngeen ma gilim gi Sidi Baara ma góor ga daal di waaxu kalaame fa tribunal yi riw ma borom nguur ga daal di leen hoo gaañi barahama mular gilem ma góor lu la wax jur gi day Sidi Baara ma fanaan ñetti tànk yi moo jam ci suuf si moo ma wax na jur gi day soox sidi baarama xaadi jànko naan de rabion gile ma gur googu lu la wax ne benn bët la sidi baarama raben ko naan benn bor yoonu mu doon lekke moo ma wan ne benn bët la gàññi baraxam jëlam ak ñaari bët buy lekk du lekke ci benn boor yu ci ñaari boor yëpp lay for bara ama looloo ma jox xaal jox ma kas te moo ma jas bu xaat moo ma wax ne benn bët sidi bara ama xaati jànkonande Ammaar yow gila ma buur googu du la wax na gen ba daa dog sidi bara Ammaar xanaaran konaan neefara ji mooy xalab ci benn boru yoon wi moo ma gen ba daa dog sidi barama gëlëm gu am geen bu neefaree ci moom lu koy juur moo ma gen ba dog sidi barama xaadi jànko naan de Ilias gilema guur googu lu la wax ne dafa rëccoon Sidi Barama Ilyasan Konaat benn bor yoon bu mu doon lekk benn balaa ñaar mu waxu kilomètre Sidi Barama di jànkoonande yile gaay nag dañ da borom mi waaye gisuñu sa gileem gi Sidi Barama booba lañ leen dalal rayal leen gàtt serwi leen naan dal di jëndi mburu jox leen gaañe baraama gaaña lekk ba pare moom góor ga da ko njaaraamaan jërë ngeen jëf ngan ngeen neex na sidi baraama mu la ko naan ngan gi dee neex na waaye gàtt bi ñu royal dafa namp meewam kalbu sidi baraama na rabbee ko naan ngan gi dee neex na waaye naan ji ñi sarwi dafa sabab loo ci harmel sidi bara amana an maran ko nan ngan jiidi e leexna waye mburu mi ñu sarwi ki ko doon tara waye laabut sidi bara amana Ilyas moom dafa wax toj toj loolu ñingol man sañu ma koy wax ci mbooloo sidi bara am xaati jànko naan de mular gàtt biñ leen reel ku la na dafa namp kalbu sidi bara am ne mularan naan mu mu leen dawal ni mu ñàkkee caf ko borom dafa namp kalbu sidi bara am ne góor ga dal di waaku dem ca borom gàtt ba naan ko wax ma gaaw sa gàtt buubu na mu deene sidi bara amma góor gan ko naan man nag sama gàtt bi dafa teel a baayo ma fopp ko jabal ko cim kalbu sidi bara amma xaadi jang ko naan rabion nan giñ leen sarwi ku la ne dafa sabab lo ci harmel sidi bara amma rabbe ko naan biñ naane yaram yaa diis ba mënuñoo jóg fi ñi nekkoon Sidi Bara a mën a naan dafay dindi tayal daal di yokku xaal borom sa war loo da waxtu gaañi Bara a ga daal di waaxu dem ca borom naan ga nan ko wax ma gaaw sa naan googu na mu demee Sidi Barama góor gan ko naan man ak sama naan resin gu sax ca sama xarme la baay ba ca la ajilee googu lee naan Sidi Barama xaati jàng ko naan de anmar mburu mi leen sarwi ku la ne ki ko doon tarawaaye laabut Sidi Barama anmar an ko naan moomu leen mburu bañ ko mu mel ni dàkkante juñ meneen sondel sidi baraam góor ga dal di waaxu dem ca borom pour ba naan ko wax sa gaaw samburu moomu na mu teene sidi baraam góor ga ko naan man ak sama liggéey na cay liggéey te ma laaj ko na mu deene sidi barama góor ga daldi waaw dem ca soxna sa nan ko wax ma gaaw samburu moomu na mu deene sidi barama soxna san ko naan ba ma koy liggéey booba maa ngi ci tiis maa ngi sintu gan ca xaybu jàng leen naan jóg leen boobu miraas seen baay yéenay jëmmi xel mu baati sidi baramam xadi jàng leen naan jóg leen boobu miraas seen baay yéenay jëmmi xel mu baati sidi baramam yaa ayyuhan naasu irji'u ilaa rabbikum kenn andoor la gëm leen Seydina Muhammad dee ci reer ji tere nit ñi reer te moom lu ngeen ci man ni barahama kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naas harmel gërëm dul la gëm leen ani barahama na gannaaw dund gi dee ha cee topp baleen kal ci dem soldar mu jom faw ñu di bara xam ne garab ak dee moo da ñàkk a juddu dee ji biñ ko galan loo gis ba bëggeen ba ñëw na aji bara xam ne waxi dundu dee a koy weddi balal kay ci dem bu galdi ko se galdi def sidi bara xam ne bu dee bëccëg fajara koy xatte moom laam duun moom bu jënt finki ndëndëm bi baraham mën a ëllu baraham baaba yaasin ci bay ba nga xam ma ne ba bàyyi da bub loxeer ca bambugaar baaba yaasin ci bu moo wessal ndar ba la jox sidi bara xam ma ne jox ko safoor boole ko puissance ne fekk liggéey bi pare lu ma xam day dawal service sidi bara xam ma ne samedi ji ci timis baba bay toll ci sukuraat haati buur rabban ba téléphone sidi bara xam ma ne haati ban nañ ko naan barhama sagam baba nee na nga pareel ko pasgal gi ñëw na barhama ne baramba nga naan kuré bi waxal borom ngir mi dimanche de cee di barhama ne bay da tollu mbi yen waalo la téléphone ba kaddu sone bi li li barhama ne téléphone gan nga fonde kañ nga muñ di baraama nag balaa maa ngi leen naan bu ñu jullee waxtu tusubaar baaba wàcci xembi di barahama ne ba ñuy jëlee baaba ca kër ba jëm fa baabu ba fii malaw dala sabat dañuy barahama ne bañ koy tëral daajilo aari fii ne na sappele ba ma jëbbal jàmbi borom si di barahama ne bi dee fene bare sappe ndoor alqaawu maxrib bi jublu penko sànni kabar si di barahama ne misbaawu salaam bi salmadi ba ne bare taxaw na nome naa koy hendi ina di bara am na bara maa leen naan mbooloo mi lu ci baaba jàmbur ragal borom ban bi borom ban bi si na ko xeeti gëm yàlla yow ma yu pasu na ko da soppe biñ ko rom si di bara am na bara maa ko naan bi dégg naa la baaba na ko wàcce diina Sidi Barahama kuré bi jaayante haddina doxadal lislaam bi waaye doo qaxaaru yal na leen waaye Barahama ne haddina xotkat bi xotkat bi sant riccu dëkk yomba wey ku dafay doxoy jaayante mooy Sidi Barahama haddina mbar mu tëlal mat jaayal ci ko jaayal rek la tër yi barahama haddina bagam cax la duy faj mar dangay rot ba dee mooy tuuru nga yëri ci gëm leen sidi barahama ne mujj ak ya ci waay ci boppam lay tees ku la yowin wa fisaani yi barahama gàffa ganaar kapp ca boppa la fay lu max man ci butel gëm leen sidi barahama ne bañee ni du soppe seen xelaat yal na am ci ñoom kon ko sama mat xol ba mat xol ba Sidi Barhama